tey rek euh, mën a tàggatoo ndax xam naa ne euh, Pawlish mii naan ma maa ngi ci yoon bi du mën a yegg si xaar leen ma woo ko ngeen déglu Pawlish waaw bonjour salaamaaleykum. waaleykum salaam. bonjour. ayi yaay kooku dem na may ma tuuti balaa ngay dem ci waali ma woo Pawlish ngeen déglu ko yi muy wax déglu leen ko. Pawlish waaw. continuer dans dix minutes. bi li ci des matul cinq minutes. ah ah ah xëy ah, ah, ah, ah man man mënu mais mais Pawlish est-ce que xamante ne la ñuy bàyyante man ak yow. kon je compte xaaral ma ñëw bu ñu bàyyante. non non non parce que Pawlish bi mooy troisième fois bu ma la invité ñëwoo dama lay bàyyi. maa ngi nii tey doo bàyyi. fan lay fekk balaa du journal ngay toog xanaa. lu balaa journal. mais lii lay mu jeex doo waaw ah, da ngaa xew bi day bees sa tànk loolu nga wax Pawlish waaw yow nag sa succès bi nag li nit ñi di wax ci sénégalais yëpp dëgg la yow yow da nga yëg succès de a c'est normal parce ma amee baax na parce ah, léegi da am moo tax nga yëg succès ku la woo de vous jox la heure doo ñëw heure looloo nekk beew damaa commencé beew nag yow buñ laa walaay <laughs> waaw ok lii dégg naa la comme que danga nga yëg succès yàlla na la yàlla defal jàmm ok Pawlish merci ah, te yàlla nga xeewi xewee gu ma de yow su ma xewee nga xewi. man du man du ma xewi. ah kay kon man du ma xewi man. waaw man dinaa xewi mais yow itamit di nga xewi. déedéet toujours ma xewi damay gaañu parce que ñëwuma ma xewi gàcce nga ko ñëwuma ko. <laughs> gàcce xewi ci attan ko xam ko ko attan. Euh. Abindour. <laughs> ki ne laam. soo doon maam ma faal. abu ci bolo. ah. <laughs> nay may jiin ma jiin ma. nga ne ñooñu ñoo attan lan gàcce gàcce xewi. yooyu ñoo ko ñoo ko attan. mais nga ne nga ne Fallou Dieng léegi muy jaay. Fallou Dieng. Hmm. <laughs> day jaay kaas. day jaay kaas. Ah. Abu Cubalo. Abu Cubalo dafa ubbi may ga di jaay. dafa ubbi may jaay. waaw mais ñooñu ñëpp ci ar bi la nekkoon nii nga yow nga ne leen i jaay booy Pawlish da nga ñeme yàlla waaw baax na ñu ngi lay xaar il te reste cinq minutes dégg nga. barke alxuraanu karim day aw Ibna day aw yëngaloon. Ibna day aw ka lay aw. day aw day day aw téere. moo am moo awal Eumeu Sène ci làmbam ji. bilaa walaay booy grand Yves Niang daf may seetaan de booy. kii kii day jaay essence. kan mooy jaay essence. Ismaël Lo yëngu ko day jaay essence ah. <laughs> baax na ñu ngi lay. Titi Titi dafa ubbi salon Ouest Foire. Titi dafa ubbi salon Ouest Foire. make up. lay de mais Titi xeewul. Ah, a ko police baax na ñi ngi enchaîné ak Wally Balago Seck fak fekk nga ñëw sa waa ji ok euh, gëré teg ci teg ci teg ci kii dafa yabaate kii kenn xamul lii lan la man mënuma ci moom dara ay ca on enchaîne Wally neen dafa yëg succès Magical